Euh, sama sama xel baa ngi dem. Euh, yaa ngi expliquer mais en même temps on vient de recevoir une mauvaise nouvelle. Mmh. Euh, il faut que nous partagions ko aussi les téléspectateurs yi. yaa ngi wax ñu ngi may annoncé génn àddina Abdoulaye Ndiaye ñu gënoon ko xam ci Ndiaye bu wala comédien bu télévision Futur Média donc bi ngay wax parce que pendant que yaa expliquer histoire bi. Euh, ñun ci euh, information bi au moment où nous vous parlons euh, ñuy tawatam voilà donc. hôpital bu ay rendez-vous am day plus bi rek suma donc jot information que moom euh, njaay noonu dañ ko daan euh, euh, voilà donc je pense que dañuy arrêter programme bi juste quelques minutes.